merci lancé mm-hmm. maa ngi jéggalu sama gars yi xam nga rek Sénégal courant benn woon cap coupé <laughs> wifi bi dagg xam nga moom wifi du dem sans sans électricité donc courant bi moo coupé woon quoi maa ngi leen di invité waat di jéggalu ma gaaw rapidement balaa courant bi di coupé waat xam nga Sénégal moom mooy loolu <laughs> maa ngi leen di ziar yéen ñëpp yéen ñi nga xam ne yéen a ma safoo te lu ma wax yéen a nga ca neenaa leen ma personne importe peu ma xaar gars yi ñëwaat live bi déjà demoon nañ ba am plus de 400 personnes mais euh, courant bi moo nekk cap coupé voilà donc bu courant bi coupé rek wifi bi day day day day dem naturellement voilà Pape Moussa Senghor bon courage merci. maa ngi woon xam naa fi ma yemoon exactement damay xaar nit ñi bëriwaat rek euh, Moussa Niang thème bi euh, problème mu coupure la euh, Mamadou Bamba Niang lii du thème kii damay waxtaan rek ak samay frair ak samay sœur sénégalaise nga xam ni am na ku yëkkati tuuma teg ko ci sama kaw te lu muy wax dara amu ci man itam ma génn di di di di wax waaw courage waaw merci merci beaucoup Kira Chou Gaydou Euh, dañuy wax ne Sénégal mooy réew boo xamante ne moo gën a métti évoluer gën a métti liggéey rawatina ci jigéen il faut avoir euh, les épaules très très très très solides pour mën a résister ci yenn yi ndax toog sa ruq rek nekk sa jàpp sa ñàmb du tere ñu fekk la ci ruq ba génnee la fa ndax euh, loo waxadi waxadi boo gisee nen ne nen a ngi liñ naan wax bu feebaree nopp ba koy dégg war a wér dafa am loo xamante ne rafetul te rafetlu ma ko benn yoon ndax loolu du ñun Sénégal dëkku valeur la dëkku lu baax la lu baax la ñu xam bu nit nag wax waxam ba pare bëgg a dédiir boppam bëgg maa utiliser def ma nagu sarax déedéet sama yaay jurul boobu doom non non du ma wax tout le temps nag waaye bu wax jotee da ngay wax des fois injustice yi tegu ci sama kaw ak frustration yi métti na mais terewul damay noppi ànd ak sunu borom. ndax nit lu mu dund rek sunu borom la neex may sant nag bu baax may sant bu baax di julli ci sangu-sang yi rasulullah sallallahu alayhi di wax ne ragal yab yàlla la ragal du jéggi raay jolof-jolof du ragal déedéet at mi ma judd amul ragal mais du ma tooñ du ma tooñ kenn kenn kenn weeru koor lañu nekk détails yi may gis ci net bi mu métti ma mënumaa bokk ci gaam boobu déedéet dafa di bu ñu la waxalee loo xam ne rafetul te c'est pas la première fois te comprendre lu tax maa ngi yemoon exactement euh, fi ma naan dafa ñëw toog ci palaato bi nuyu ñëpp tëb ma ku ne mu tagg la waaye baax na moom moom nuyoom terewul ci ñàkk nuyoo boobu yëpp man en tant que professionnel ndax nit munoon nga ne boo toogee nit ñëw ci palaato nuyu ñëpp tëb la euh, booy posé mun nga ko bañ a posé déedéet man moom sama bopp taxuma faa toog moom taxuma faa toog sénégalais yi nekk bitim réew ak ñi nekk biir réew di ma seetaan damaa am devoir envers ñoom donc su ma toogee ci plateau lu ma waay mën a def du foofu laay régler sama problème ndax ñëw nga ñu nuyu ñëpp tëb ma loolu rek nekk na manque de manque de respect boo xam ne notoire la te mënuloo wax lan la la nit def nga toog ci biir plateau bi di wax di gaaruwaale man nekkuma ci ay gaaruwaale ak ay comédie di xas nit ñi di defante je ne suis pas dans sa yooyu nag danga ma ci da ma ci génne gaam yooyu nga nekk nekkuma ci gaam yooyu te bul ma tooñ yow yaa toog ne dootoo nekk candidat député à la diaspora ma relayer information bi xanaa yow man nga yàpp waa thème bi nitu tey la Moussa Niang waa nitu tey la parce que nag tooñ weesuwul nga topp nit di ko attaqué muy ignoré ngay attaqué muy ignoré nga ñam mu neex rek nga ne xaaral ma continuer parce que comme dama ne woon duma ma présenté wu nekk député à la diaspora léegi naa jafandiku ci keps parce que toog na ci tele bi wax ni yow yaa ko wax relever defuma lu dul jël li nga xam ne moom moo di rek euh, relais information nga ne lu tax ma ma wax ko ñi ko wax bëri na yow yaa ko wax su ma paree léegi lu amul seede neexul damay dugal vidéo bi ah nga jógee ci loolu rek def sa petit coalition ne dañ laa daggal ay jëw di la ko kuy jëw doo wax ci micro li ma wax ci micro bi dama ne lan mooy seen rôle man sama yoon nekkul ci ay rôle lu député lan la ñu def lu ñu deful dénigré wu ma kenn dama équilibrer information bi dama ni ñun de am nañu député diaspora trois ñoo ci nekk opposition euh, ma limaale ko ci moom daal di ne ñoom de am na ñu leen di ŋàññ di wax ne seen liggéey xamuñu lan la waaye man de duma bokk ci ñuy ŋàññ ndax loolu du sama rol sama avis ça importe peu ma ne am na ay nit yu jóg bëgg a nekk député waaye nag ñooñu ay la yéwén bëgg a nekk député bu mu tax ñuy ŋàññi liggéeyu ñi fi nekkoon man dama équilibré information bi ndax li may wax dama koo jàng du ma toog ci télé di la tudd naan la yaa ne doo nekk député euh, diaspora te waxuloo ko lu may wax day am preuve te dinaa ko teg fii. Kantaa na nga bëgg a wax ne man maa dugg ci liggéeyu député de la diaspora ce n'est pas vrai li nga wax du dëgg waxoo dëgg waroo toog tamit naan dama lay jëw parce que dëgg ce n'est Sénégal nag boo fi nee patt ñu dëggaate la. loo mën a doon nekkal député ragaluma la parce que tooñu ma la fi ma ñem fi ma jëm ñeme naa ko yàlla rek moom moo fi nekk mais jigéen du toog ci plateau di yàq jigéen boo xam ne defu la dara di mère de famille di dund ak quiétude di ñafe di liggéey boobu ba léegi ci diaspora bi fi ma yemoon exactement mooy fi ma fi nga toogee ci plateau bi laay ñëw da nga def ay acte yoo xamante ne acte yu àdduna bi yëpp mën a gisaat la ndax bu ñu demee xool ko gis ko jëf dafay rafet wax dafay rafet ndax nettali ba ëllëg nit ku la tooñul bu ko tooñ nit ku la deful bul ko def ku la waxul bu ko wax dangaa ñëw ci plateau nuyu ñëpp tëb ma tagg ku ne ma jël sama tànk teg ci ne amul ay la yowén amul problème terewul li ma la bëgg a laaj dama la koo laaj nga toogaat ba ci diggu palaato bi ne man warumaa def diaspora parce que dëkkuma fi nga xam ne mooy itali fuy Italie fi ma dem yow moomu demoo fa fi ma dugg dem duggoo fa ba may tukki tukki woo te man xëccoowuma ay immigré pour di ci am dara nee naa la président Abdoulaye Wade yal na yàlla yokk ay fanam may ko gudd fan ak wér góor gu tedd gu baax googu moo ma xool ci sama liggéey bu rafet recevoir ma ne ma lan nga bëgg ma defal la ma ne ko bugguma dara dërëm jëlewu ma ko ci Ablaye Wade ñu xëy titre ma ci journaux yi wane ma journal télévisé 20 heures ñaari dërëm jëlewu ma ko ci Ablaye Wade te booba ku fa dem valise nga fay génnee kon ki bàyyi ab lay Wade président woola laaj la nga ne ko bëggoo dara kooku nam moo ay saak lan mooy saak lan mooy ay dangay dem ñu lay may saag ak dàll yow la saag ak dàll tiital man na fi benn immigré génn ne daf may jox xaalis wala dafa may may damay liggéey te yàlla tax bëgg li may def nag ñu bàyyi ma ma exercer sama liggéey dama koy def ñu ñàkk ma bàyyi dama koy def taxawal fi immigré yi nag muy guddi muy naaj muy bëccëg ma ti ci daj lu nekk kenn fayu ma kenn fayu may liggéey nag sonn ci ku ma woo ma wuyu la sujet bu ma war a wax wax ko taxawu leen nag ku bëgg a jàllale sa euh, euh, yëf ma jàllale la ko gratuitement parce que dañu maa dénk liggéey ma di ko def ak li nga xam ne moom moo di sama quiétude bopp ànd ceeg éthique ak déontologie li ngay wax ay waxu picc la ay waxu kasaw kasaw la taxawul ay débaawu bas étage la ay jëw yow yaa xam luy jëw man jëwuma kuy wax ci micro doo jëw yaa ki nga ne daf la ko daggal man du tey laa mës a déjouer ay calan ki ay ay plan nekkuma ci yooyu ci dëgg laa nekk ku ne ci dëgg doo ragal fi nga jëm defuma la dara arrêteel acharnement bi ngay def ci man foo génnee wax ma génn wax ëppoo ma làmmiñ dàqoo maa wax bàyyi li ngay def dem toog ci plateau télé ñu dëkk la micro ngay xas gor di xas doomu jàmbur di tuumaal nit man duma jëwkat sama juróom-ñaari maam du ñu jëw xaw ma luy jëw sama ngor duma ko jëndee saak bu ma doon jël sama ngor di ko jëndee ay saat kon du ma toog ci tele bi war a liggéey duñ ma bàyyi ma liggéey génn ma jaayuma sama ngor moo tax su may génn di liggéeyi taxi laay jël sama oto paan bu ma jaayoon sama ngor suba suba wala tey tey xam naa fi ñuy utee oto man doxuma ci matériel alalu àdduna euh, yóbbalu ma fëkk mënumaa yóbbu butéel nag li mu def lay xeeñ wax bu feebaree nopp ba koy dégg war a wér xaw ma nag lan la moo tax ngay acharné wu ci man xaw ma lan moo ko waral mais li nga xam ne moo wóor te wóor man duma ragal fi ma jaar bëri na fi ma jaar bëri na lool bi may toog ci télé bi nag bi àll bi ne séng kenn ñemewu fi maa xuus jàll nag bi ma jàllee ñépp ni ah alors kii warul génn fii kii boppam bi nii la mel kii leneen li ah ma muñ ko nag ndax man maa choisir bëgg a génn tele ñama daan woo di ma xas musuma leen a tontu ndax tontu du sama métier mais bu tontu jotee yenn saa yi dangay wax parce que jigéen du toog fee di màgget magum jëmm boo xamante ne yow xam nga lu ne dem nga fu ne yore sa micro toog fu ñu ne nga toog fa rek di xas doomu aadama di xas gorte kooku defu la dara yow yaa ne woon doo présenté wooti nekk député diaspora man ma def relayer information bi kese ma ànd ak sama ngor ak sama dignité ku ñaanul président de la république mu ne la lan bëgg ma defal la ko dama parce que damaa gis ni ngay waxee kan moo la ko jàngal euh, Fatou Gueye bul ma waxati bul tontu loolu laay bañ a dégg xam nga lu tax xam nga lu tax nga ne ma ne la bul tontu xam naa ne lu baax ngeen bëgg jàmm jooju ngeen bëgg maa la ko gën a bëgg maa la gën a bëgg jàmm jooju mais benn instant nit du toog di la jiiñ naan la ay da nga dem di ko jëw loolu dafa ñaaw loolu dafa ñaaw man jëwuma kenn man du ma jëw mu ne dañ ko ko daggal jox ko ko na jël liñ ko daggal jox ko ko mu teg ko man dinaa leen dugalal léegi vidéo bi muy waxee ne moom dootul présenté wu maam jaara faam laay waxal yow mi laaj ku may waxal dama ne woon du ma tudd turam mais yow mi may laaj moom laay waxal parce que moo ma wax baat la ak tontu kuy bañ ko la tontu doo wax xamal li ngay wax mais bul xam lu ñu lay tontu jotewu ma moom dara nee na keroog la ñu mus a toog du keroog la ñu mus a toog daje nañu man ak yow leeral dafa baax daje nañu man ak yow bi faal diaspora di joxe li nga xam ne moom moo di trophée diaspora fi nga xam ne mooy méridien mais bi ma la nuyoo à nga ma fay danga maa sewal neexuma la yàllaa koy def bugguloo ma mais nag yemal ci loolu ndax kenn mënuta tëb rek ne yow na la ñëpp bëgg neexuma la d'accord c'est bon mais yow joxeel raison bi tax nga may attaqué fu ne amul yaag ñi nga àndal ak ña la ko daggal yéen ñëpp ci pot fii ku ne mën ngaa yaru waaye ku ne mën ngaa nag bu wax jotee nga wax maa ngi leen di jéggalu nag ci baat bi ma yëkkati ndax xameewu leen ma loolu mais senegal dafa métti dañuy lay xool ba ci yàgg rek bëgg laa gor temps yooyu yëpp kenn waxatuloon samay wax parce que gisuñu ma ci télé yi bu ñu la gisee nga commencé génn di defar ba mu baax di wax rek coow li jóg coalition la ñuy def petit coalition ña lay reetaan nag ña lay sourire rek ñay wane ne dañ laa bëgg ñoom ñëpp a man loolu yëngalu ma xam nga lu ma intéressé mission biñ ma dénk ma war ko accomplir muy doomu senegal yi nekk bitim réew may liggéey ci gratuite nag man nammuma ay saak man may saak may daal man du ma nit ku matérialiste déggoo li ma la wax yow oto ba ma Youssou Ndour jox dafa paan mi ngi fii léegi mu def ñaari at taxi laay jël awma ci complexe awma ci ragal awma sens interdit sama koñ bi ñëpp laa melal ne mu roog soow samay dàllu carax laay sol génn dem ci ñoom di doxantu di waxtaan et eh, ba may siiw kenn siiwulan ah, wala ñi siiw bëriwul ba may génn ñëpp di ma seetaan du tey booba foo ne woon bi ma Ablaye Wade di woo naan ma loo bëgg ma defal la ko foo ne woon ana nga woon ah foo nekkoon kenn gisula woon dañ lay xoqatal pour nga ragal dellu ginnaaw pour nga mën a euh, déstabiliser wu man kenn mënumaa déstabiliser yow ba pare toog ci palaato bi bi mu defee loolu ba pare daje nañu nga sewal ma benn ba toog ci plateau def saak dàll mooy lan ay saak waxi dof ma toog ci palaato ba ba ngay jóg loo wax man warumaa wax ci diaspora man sama tànt sama jabaru pap moo doon liggéeyee lof Lufthansa compagnie allemande la bi may dugg avion ak di voyager du tey te loolu du ndam ndax voyage mooy lan bu ma neexoon dem dëkk bitim réew am naa këyit gi am naa visa bi musumaa def Amérique gi may dem sax musuma faa def un mois bu mat ndax bëgg sama Sénégal bëgg sama réew bëgg taxaw nag participer ndax Sénégal kenn moomu ko gënuloo maa doon sénégalaise le Sénégal appartient à tout le monde kenn du ma ci génne am naa way woo xamante ne kenn du ko dindi ci audiovisuel ñu may def lu ne nag ma noppi waaye bés day jox nag nga wax parce que yëf yi day bëgg ëpp voilà ba may tukki du tey kon yow du yow yaa am crédibilité pour wax ku war a wax ji diaspora bi wala déet ñi am crédibilité mooy waa diaspora ak waa Sénégal te ñooñu jox nañ ma bopp kon du yow say mbir nag génne ma ci ba ma set ma la ma la bul ma tudd bul ma yàqal damaa ne ci yoon damay dem bu ma kenn tojal jotewu ma ak yow dara nga toog di wax muy neex rek nga continuer di xalam fii ñëpp mën a wax <laughs> ku mu neex nga teg micro boo ne der dama ne ñu ne la ñëpp déglu la ñëpp la ñuy déglu ndax senegal jokkoo maajoor jokkoor leer bee leen neex man kenn xamuma ci loolu mais nag il faut que tu arrêtes damaa calme noppi di supporter yu bëri bis bu set nit yeewu gis lu mu war a mën a faj te du ko faj et fi ma jaar bëri na te métti na ah. mais kenn dégguma ah. li may subiir bëri na te métti na mais kenn dégguma dama ne teg waaye ñi la pousse ci man ñoom xam nañ ma coalition ngeen def noonu ñi la pousse ci man xam nañ ma bu baax duma xeex duma xuloo waaye am naa fulla ñi dem nag ba seen der yàqu ñuy wut moroom di wut luñ ma kole motif loolu du am parce que fii yàlla rek moo fi nekk waaw signer may may leen ma ay kër léegi ma jeexal vidéo waaye ñu may defal euh, ay tête de mort may leen ma kër sama gars yi maa ngi gërëm ñëpp nag maa ngi gërëm ñëpp euh, we love you waaw Emis Air man itam ñi bëgg a dugg ci vidéo bi bëri na de xaw ma nag may leen ma kër waaw waaw maam Anta Maane yow kepp si caam faaris nga zéro faute waaw waaw merci da ngay toog ci sa ruq di def lu baax di wut lu baax tooñoo kenn <laughs> ah jar na cent milliards ma mayaat la ko wala <laughs> nee a reetaan di jar na cent milliards <laughs> nekk ci lu baax di wax yu baax di foo di ree waaw kay Mouha Baro ah damaa bëgg ngeen dooleel ma de ndax fi mu ne nii dafa am ku dal ci sama kaw te arrêté gul te man jotewu ma moom dara. dafa wax ne du nekkati candidat ma jël information bi relayer ko mu dem ma def ay affaire am jël ko di toog tele bu ne nga toog wëree ma fa ne man dama ko doon jëw man damay ut ay saaga ki daal ba pare naa dëggal sama bopp bu fekkee damay politique politique gu lan politique gu lan yow bu ma bëggee politique yow concerné wu la fu ma bëgg a far ku mu neex nga far fu la neex mais man en tant que journaliste ak li may liggéey il nous est interdit ngay wut fooy farak fooy parparloo ñun li ñu jàngaloon ci école journalisme mooy que yow sa appartenance religieuse sax kenn waru koo xam parce que intéressé wul kenn man fu ma far intéressé wul kenn man bokkuma ci ñuy toog di def vidéo di dugg ci lu seen yoon nekkul na ma ko nit ñi seedeel ndax looloo am man dugguma li ci lu ci lu sama yoon nekkul waxuma ci politique utuma ku may ŋàññi ku may àndal ku may bàyyil man sénégalais yépp laa fi nekkal su ma gisee lu ma war a wax waxuma dara loo xamante ne du ma tëb di attaqué doomu aadama du ma tooñ du ma tooñ kenn ndax tooñu ma la duma wax lu ñaaw du ma def lu ñaaw mais dafay am fooy toll foo xamante ne buñ lay topp di la ërtal di il faut nga jéem a nag benn instant euh, wax loolu rek la mbir mi demee waaw Yacine Diop waaw noble Sénégal nag boo nekkee noble ni patt dañ lay dëggaate jaar ci sa kaw ndax laal na mu nooy mu laalaat mu nooy mu ne xaaral déedéet du noonu nag man jigéen laa mère de famille laa dama am njaboot ña nga doon tagg ci plateau bi naan dañoo am seen yaay yi dafa baax seeni xarit lañu ma ne damaa am yaay sama yaay génn àdduna bu yàggul ma koy ñaanal suuf oyof ci kawam ma am bàyyi nag muy dund ma dëkk daara jolof gii jolof-jolof ci ndey ak ci baay yooyu sax amul solo parce que fii kenn ku nekk foo bokk taxul terewul nga am valeur doomu aadama li nekk ci moom yàllaa ko ci def ku ne am na lu ne ci yow lu mu deful ci moroomam mais nañu bàyyi toog di xas nit ak di attaquer nit ku la deful dara munoo génne preuve ne lii laa la def soo bëggee taqal nit wala nga bëgg ko tilimal rek inventé une histoire à dormir debout nit da ngay am personalité am classe ngir lan la lañ la def ak lañ la fal ak lañ la jagleel Sénégal nag problème bu am mooy kuy wër buzz man waruma buzz utuma buzz ndax bi ma fi toogee génnatuma ci télé bi pratiquement joxatuñ ma sama émission bu ma neexoon ma créer ay wax pour am buzz man du ma nitu buzz sama ruq laa toog na nit ñi wax rek te yàlla tax fàtte xaju fi maa ngi sama ruq toog ñàkk génn gi may ñi ma xañ sama samay droit li liñ ma frustré ak liñ may def yépp taxu leen ma wax fi toj toj pour am buzz man du ma waxkatu toj toj fu ma waxee ci site internet site bee ma woo invité ma woowu ma benn site naan la jël ma damaa toog sama ruq xam ne lu yàlla dogal mooy loolu bu ma neexoon ma ne man damaa nekk au sommet di liggéey sama liggéey jóge ci télé dem ci beneen tele kenn déggatuma naa créé buzz doxuma ci buzz doxuma ci loolu dama ne teg di liggéeyal jasporaa bi wax dëgg neex yàlla sonn ci ñoom nag amu ci kenn kuy génne xaalis di ma ko fay wala nga ma koy jox man maa mag loolu conteneeru ay saaga ki dàll yow la intéressé man intéressé wu ma ndax sama tànk yi laa yore génn fii di doxi samay soxla bu ma bëggee génn jël sama taxi taxi laay jël daf maa déranger bu ma neexoon ma ni damay dem uti oto xam naa fi ñu koy utee xam naa ni ñuy def ba am ko sama dignité sama ngor dara duma ko tax a jaay man gayndeeg njolloor gi mbagga mbabbaag ma kodd ñooy sama maam ndax xam nga problème bi mooy lan mooy butéel lu mu def lay xeeñ jombale naa sama bopp di jaay sama ngor ndax ay saaga ki daal nit ku nekk nag li nekk ci yow ngay wax man duma boobu façon mais nañu arrêté wax ju ñaaw baaxul tuumaal gor baaxul Sénégal foofu la ñu toll tax ku nekk ragal ragal du jam guy man ragaluma la ragaluma sax ku dul yow xam nga ku ma ragal yàlla subhaana wa taala jalla jallaaloo azal kamal buuri buuri borom asamaan ak suuf borom kun fa yëkkun am ay waajur am ay doom di responsable taxawaaluma doxuma ci lu ñàkk fayda dew ma benn dëkk dëkk fan am nu ma fa nekke fii nag ñëpp xam nañ nu mu demee fii laa toog ci sama dëkk bii di Sénégal ma bëgg ko lool uuf sama njaboot uuf sama yaay ba mu génn àdduna may dund sama dund nekk ci sama jàmm nekk ci sama ruq taxawaalu ma dew ma fenn kenn gisuma fenn maa ngi toog ci sama kër mënoo yàq sama der déedéet crédibilité bi nga war a am pour taxaw am res nekk responsable nekk élu war a uuf ñëpp war a wax lu baax yow kay su ma la defee lu la métti woo ma ne ma li ma def neexu ma mais loolu dafa amut yow yaa toog ne dootoo présenté wu ma jël loolu dugal ko nga ne lu tax bi nga ma ko waxee wax nga ma ko ci coulisse émission bi ma ne la ah pourtant man de wax dëgg yàlla am na koy wax naa ko jël soxna Bamba Ndiaye pourtant maa ngi jël mais xaw ma nu ñuy demul soxna Bamba bi nga ma ko waxee nga ne ma ba émission bi jeexee nga ne ma. da def erreur ma ne la ban erreur laa def nga ne ma da wax ne man maa ne dootuma présenté ma ne la non man defuma erreur parce que j'ai des images dama yore image yi dama seetaan man bu may def émission ñu ne ma tey diw la ñu invité damay dugg ci euh, kii bi documenté wu j'ai des recherches bi ma defee recherche ma gis benn émission boo xamante ne Italie lañ ko defee woon nga toog ne yow acte nga bu yàgg ne dootoo nga ne ma non da nga waroon préciser ma ne la non ça va de soi c'est évident que man je ne parle pas des députés fii je parle des députés de la diaspora parce que man diaspora laay def donc mënu wax ci député leneen loolu ça va de soi nga ne ma ah d'accord kon amul problème léegi da jël sa numéro sama numéro nga woo ma invité ma ma ne la d'accord amul problème su fekkee ne heurté naa la de maa ngi jéggalu ca yar gaa nga la parce que damay jox ku nekk cër man nga ne ma d'accord jëlal sama numéro nga wooma man bi ma defee émission ba pare naago sekk naago maa ngi koy nuyu di ko ziyaar yónnee na ma message ne ma kontaan naa parce que amul dara loo xam ne wax naa ko wala ma xas ko mbaa ma ko député yi amul waxuma leen dara lu ñaaw je ne je kii pour daan damay tiireloo ay bilan du ma man du ma man maay kan tiireloo ma bilan dama ne j'ai juste posé une question lan mooy rôlu député de la diaspora man nag comme mënuma cee tontu ma dem euh, def ay recherche laaj nit ñi collecter information peut-être xamoon loolooy collecte de l'information ma collecté ko ci biir collecte de l'information bi ma gis ni yow yaa ne dootoo présenté wu man ma ñëw jël wax jooju wax ko ndekete wax jooju moom moo indi coow li yow yaa ko wax am na ñu may seede fii ne ma elle a bel bien dii que du présenté wu mi ngi nii Insa euh, Cissé Fati parce qu'elle a compris elle va plus gagner en Italie ici man loolu sama yoon nekku ci bul ma ci dugal soo bëggee dédire sa bopp bëgg na yaa ne woon doo présenté wu nga présenté waat utal beneen nagu sarax sama yaay jurul boobu doom seetal neneen nooy def je n'ai fait que relayer li nga wax yow yaa ko wax ma waxaat ko loolu nag bu taxee nga dem toog di inventé naan dama lay jëw man maam ak jëw xool ma bu baax du ma jëw du ma defkatu lu bon duma ma njëddu téer yi du ma madantaali fii laa dëkk Sénégal keroog nag toog nga ci plateau bi ba ngay jóg ne kii moo war a def diaspora ndax moo fa dëkk ku fa def dëkkul waroo koo def déedéet fu ma neexoon ma dëkk diaspora li fa xew yëpp nag xam nañ ko su ma neexoon ma dem dëkki fu ma neex mais man Sénégal moo ma neex ndax Sénégal maa tout donné defu defal nañ ma lépp may commencé ci télévision en deux 2003 am ñu may critiquer sénégalais yëpp soutenir ma jóg taxaw parce que lu bees la woon ñooñu dama leen di delloo njukkal fii laa juddoo suuf si yaroo fi màggee fi jàngee fi Sénégal defal ma lépp ñu bëgg ma lool gis ma ci tele bañ maa gis ci télé du tere ñu am fuñ ma teg ay nit di la ñaanal fonk la dangaa defee ne dangaa amee nit yow kese toog nga sax ci plateau bi ne kenn ku nekk ni nga mel noonu la sax ay réseaux sociaux di mel keroog la nga ma wax bëri na nag waaye terewul <laughs> ma sourire sourire bi dawal professionnalisme am auteur ki doon réaliser émission bi sax daf ma yónnee message ne ma professionnalisme bi ma wonee ñépp ne ma heureusement ba dugguloo ci jeu bi yi nga xam ne moom lañ la kàmmal ndax dangaa ñëw rek di ma attaqué ma maroon laa mën a tontu nag fi ma attaqué nag ndax nag ñépp am làmmiñ ma am hauteur am respect pour ñi may seetaan quartier général ma bàyyi la nga wax lu la neex def lu la neex émission bi jeex nga wax ak man ba pare xëy dem toog ñu dékkal la sa micro ma dégg kuy xale yu jigéen yi nga xam ne da ngeen di bokk métier bi waaye du ñu soutenirante kenn ku ci nekk yaa ngi xool nit yàkkamti mu am euh, faxastalu wala mu am galgal ba nga jël yëf ba kontaan ci nañu arrêté nee naa leen célébrons-nous vivants chaque jour ma wax ko nañuy waxante lu baax di ko yàkkante di defante lu baax yàlla sunu borom kontaan rawatina weeru koor bii nit mun nga ko xool apparence am déranger la loolu du moom yàlla sunu borom la ngay seet nan ngay def waxaguñu sax am ku nekk ci suuf naan kepp si caam la looy kepp si caam yow bu ñu ne woon kepp man de bu doon man la ñu tudd sama sœur mu nekk ci animatrice walla journaliste damay taxaw soutenir ko waaye duma ko suuxal arrêté leen li ngeen di def lii ñépp ko mën voilà wax jaa ngi bëgg a bëri maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi euh, euh, arrêté voilà ñii te seede yaa ngi elle a bien di qu'elle va pas se présenter man nag je ne lui ai rien fait j'ai juste dit relayer information bi su ma paree léegi naa dugal vidéo bi mu ko doon waxee waaw loolu de laa wax waxuma fi leneen wax nag ni député yi wax dëgg yàlla amuñu ay moyens ba pare amuñu contenu waxuñu leen spécifiquement lan la ñu war a def ma ne sénégalais yi da am na ci ñuy kaas ne dañoo bàyyi seen dëkk yi ñu leen falee ñëw toog fi nga xam ne moom moo di Sénégal loolu laa wax mais dama équilibrer information bi mais man du man maay def bilan wala maay décider mais damay relayer loolu mooy sama liggéey dama relayer info parce que dama am sujet le rôle des députés de la diaspora ki ñuy wax naa ko sekk moom il a parce que yónnee na ma message di félicité liggéey bi nga xam ne def naa ko ba pare daa di ne ma euh, dinañ ci wax man ak moom xanaa man maa ko contacté gul ah? nga yeewu suba teel rek xëy dem toog di wax lu la neex di wax ay saaga ki dàll man damaa namm saaga ak dàll man maa mag je ne suis pas matérialiste ma alalu àdduna yóbbuwuma fu ne dugg naa fa nag ci àdduna bi fu ne dem naa fa waaye fëkk yóbbuwuma te sama réew ma gënal lu ma mën a am man bokkuma ci complexe yi dem bitim réew naan dañ fay dëkk ak ay lii fii laa dëkk parce que li nga wax moo tax ma tontu la loolu tooñu ma kenn ngaañu ma kenn mais danga ne man dëkkuma bitim réew kon waruma cee mën a wax li nga wax du dëkk ak fi nouvelle technologie yi toll ma yore sama tànk bi dem fu ne ci àdduna ba booba kenn dalaa xam nga toog tey ne man waruma cee wax yow mënoo laa maa légitimer du yow yaa may jox légitimité bi war parce que légitimité bi am naa ko ba pare ndax waa diaspora bi ñoo ma ko jox ndax ñoom ñooy gor yi nga xam ne li ma leen di defal ñoom xam nañ ko mu tuuti mu bari ku ci am sa information am loo bëgg a jàllale wala nga am jàmbat wala lu ma sa xew rek taxaw naa ci ñoom ak ca moyen ya ma am muy wax relayer information bi ndax man mënuma lenn aw ma ci benn pouvoir mais nag li ma mën maa ngi koy def na ma ko mënee même bu fekkee ne matalewu ma lépp du ma tëb nag di toog ci plateau di def émission te defuma ay recherche wala wootewu ma wala laajtew ma damaa woote ba laajte ñu wax ma loolu kon su fekkee ne loolu moo la naqari nga réglé ko neneen waaye doo dem toog ci télé di jël nit ki bëgg ko dénigrer di jël yu tuuti yu sew di ko ko taqal naan dañ la koo daggal di la ko jox yàlla yàkka la ko daggal nee naa leen ci pot waaw loolu la wax donc sama gars yi maa ngi leen di gërëm képp koo xam ne yaa ngi doon xool euh, euh, live bi c'était juste une petite euh, benn euh, mise au point bu ndaw la woon donc euh, voilà kii mi ngi wax ñii di participer yëpp Al Amina Thiam j'ai suivi l'émission tu as été très grande macha Sénégal moo tollu foofu xam nañ ni léegi <laughs> góor yëpp la ñuy jot dëgg la doy na waar góor yëpp la ñuy jot boo toogee sa ruq ne doo wax itam dafa am loo xam ne bu jotee foog nga leeral ko man jëwuma kenn ay saak yitteelu ma ay bagage yitteelu ma je ne suis pas matérialiste xëy na danga maa xamul lekkuma dërëmu kenn damay liggéey ñu may fay nag sama salaire fin du mois mbaa baag ma koddooy sama maam gayndeeg njolloor gu cousin wu Alburi Njaay yooyu boo ma xamul duma kuy nekk naan damay jaay sama ngor man duma jaay sama ngor duma jaay sama dignité bu ma ko doon jaay 4x4 laay yore fii gaare ko di dawal ah 4x4 nag sama jëkkër sax yëkkati na 4 x may ma ko waaye ba mu paanee yépp laa teg fii di dox ak sama tànk bu ma doon keneen ma complexe ah. naan du ma jël tax taxi laay jël man maay kan ñëwal fi ma dëkk nga laajte ma fi ñëwal fi ma dëkk nga laajte ma fi man damaa naturel lu ma wax dëgg la ci man du ma tricher nag du ma wax lu ma gëmul te duma ma tooñ waaye dafa jotoon nag ma wax la nga xam foo génnaatee wax ma génn wax arrêteel di ma wax loo xam ne amut loolu ñépp a ko mën comédie di def affaire ay comédie di xas nit ñi di ci naxasaale non yow yaa ne dootoo présenté boo bëggee présenté waat demal uti beneen yoon boo jaar bu ma paree léegi dinaa leen dugalal li nga xam ne moom moo di euh, euh, vidéo bi di jéggalu ñëpp nag waaw dama ne woon naa def communication ku mën a partager nag nga partagel ma pour nag wax ji egg fa mu eggoon ndax fa mu toogoon di ko wax woo naa leen pour am droit de réponse <laughs> mais bëgguñu loolu apparemment parce que nag fa nga toogee woon wax ko laa wuggoon a toog dem wax ko fa ba mu won la ne la man du ragal ku tooñul doo ragal loolu la woon maa ngi leen di gërëm di leen sant ñi buggoon dugg nag euh, euh, ñi bëggoon dugg ñëpp mënuñoo mënu mënuñoo dugg waaw voilà ani 24 vint 24 heures nekkatu fi taxul ma ñànki <laughs> ñàkk du la tax a ñànki ah euh, mar naan bu la taxee <laughs> naan bu robinet euh, tijjee bu la taxee naan poutine bu robinet tijjee nga rus damay ànd ak sama ngor ànd ak sama dignité waaw am fullaak fayda Vieux Diouf jaru ngay dugg ci sama live naan ku la tooñ yéen a ruube yéen a tëgg tëmëje yépp xam nga lépp ndax fekke nga ko boo bëggee rek ma boole la ci léegi <laughs> voilà maa ngi jéggalu weeru kooru yàlla gii ah nit ñi woor ngay seet ay détails yu ndaw fu ne nga toog fa di xas doomu aadama yi nañu arrêté très simple naturel waaw kay <laughs> gâteau Abibatou Gaye Ndiaye maa ngi leen di nuyu di leen ziar di kontaan ci yéen di leen wax jërëjëf ah ci soutien beeg gis naa lépp waa diaspora bi nag damaa bëgg ngeen dooleel ma nag bala ñoo dal ci sama kaw te defuma waxuma man nag su ma defee am naa humilité bu tollee ne baal leen ma wala jëggal leen ma mais defuma dara <laughs> defuma dara mais nag yàlla mooy def nga xool nit kii du la saf neexuma ko waaye baax na waaye du tax nga pëtëxal ma ndax sàkkuloo ma yàlla mooy sàkk man de bañu ma la man duma bañ doomu aadama duma xool nit rek bañ ko bañu ma kenn bañu ma kenn waaw Moussa Niang yaa réalisé émission bi <laughs> bañu ma kenn yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm yàlla na yàlla sàmm leen aar leen ah indi jàmm ndax jàmm ci la lépp xaj jàmm moom boo ko boo ko bëggee danga koy maye di ko joxe waaw boo yéenee nit ñi jàmm rek am jàmm man nag ci jàmm laay dox su ma xëyee suba maa ngi ci sama yëfi bopp tooñu ma kenn bokkuma ak ñiy dem di dugg ci politique di dugg ci yëfu jàmbur di ci defi vidéo gis ngeen ma ma def ko di wut ku ñu faral ak ku ñuy bàyyi sama yoon dugguma ci duma dugg lu sama yoon nekkul li sama yoon nekk laay dugg mais nag kenn mënumaa xoqatal ba duma sénégalaise fii laa juddoo yaroo fi màggee fi et je le réclame génnuma fi Amérique gee may dem bu ma neexoon tey ma dem fa chaque jour ma dem mais musuma faa def weer damay yàkkamtee ñëwaat Sénégal ndax Sénégal laa bëgg ah maa ngi gën a belli suma ma meree <laughs> rakki <laughs> rakki bàyyil tooñ <laughs> maa ngi lay nuyu depuis Allemagne fexeel ba ma belli rek fexeel ba ma belli rek kontaan naa trop voilà mi ngi noonu mi ngi noonu merci beaucoup à à tout le monde ba beneen yoon ma bëgg na ngeen di ma dooleel nag jàppale ma bu ñu ma xañee fële sax ngeen jàppale ma ma ubbi sama chaîne YouTube ngeen abonné fa ñu fay def diaspora di waxante yu baax ne yu baax ak yu rafet ak yu jekk loolooy àdduna di sañse di wax lu baax di def lu baax waaye nag du tere ñu am laa tête sur les épaules xam li ñuy wax ba pare di gëstu ndax boroom xam-xam du kenn ku dul ki nga xam ne intellectuel bu ñu koy wax intellectuel boroom xam-xam du kenn ku dul kiy gëstu te man de sañu maa dem di toog ci télé ndax xaw ma dara il faut ma dem toogi def recherche pour yéen ñi nga xam ne dama leen a respecté saa yu ma toogee ci tele damay dem euh, nu mu tuddati euh, dugg ci net bi dugg fu ne woo doomu aadama yi collecter l'information su may wax information tam damay équilibrer information du ma ñëw nit woo ma rek ne ma diw nee na lii wala diw def na lii ma basé wu ci su ça c'est le c'est le b.a.-ba règle de base du journalisme loolu la ñaari parti yi ngay jël teg ko laisser le public ñoom ñu apprécier et que man sama parti sama fu ma bokk ak lu may def ak lu am rek loolu saa ça importe peu man fu ma far ak ku ma àndal faruma kenn faruma kenn et même su ma faree ci kenn sax dañu tere ñun métier bi ñuy def nga fësal fi nga far ak ki nga àndal muy ci wàllu religion ci wàllu politique ci lépp man kan laay war a faral bay toog ci télé di ut ku may neexal naan sampal sa ndënd bu dee dangaa bëgg a politique su ma bëggee politique damay politique ba mu neex ma moomoo ko mais ma maa ngi liggéey sama bu ma namoon dem ba bëgg politique du yow yaa ma koy tere kenn du ma teree politique su ma bëggee politique damay politique kooku moom mais politique gu ma bokkuma parti boobu ngay wax ban parti laay bokk bokkuma benn parti politique parti bi ma bokk mooy parti immigré yi ak sénégalais yi ma dugal seen biir xol ñu gis ma ñu ñàkk maa gis ndax nag lu jiitu ci xol tëj de le goût de la première fois dara du ko dindi goût première fois dara du ko dindi te xam nga mooy lan bañ ñu njëkkee xëy rek gis ma ci télé loolu kenn mënu koo dabu mënu leen fexe ba du am mënoo fexe ba du am yàlla def na ko ba pare même bu fekkee fi mu nekk nii nekkatuma ci bës ndax man utuma bës dunduma ci bës lu yàlla def muy noonu damaa wàkkirlu ci suñu borom lu ma teg man nangu ko waaye nag di dëggal sama bopp nag lu jot ma def ko du ma daje kenn ba sëgg ndax defuma daray ñàkk fay fayda voilà fonk ñëpp gërëm sant ñëpp waaye du tax nag ñu may dëggaate Émile Ndiaye nuyu naa la nuyu naa képp kuy seetaan damay tontu Modou Kébé bàyyi leen loolu bàyyi leen loolu damay tontu ba mu neex ki toog di ma jiiñ jëw ne da ak di ma jiiñ ay saak yu may may nga ne bu ma tontu Sénégal nag noonu lañuy def maa la gën a bëgg Modou Kébé maa leen gën a bëgg yéen ñëpp laa bëgg voilà ma bàyyi ñu dem ndogu ji nag fi mu nekk nii damay ñëw def léegi yaa sa miche bu baax lal sama table def samay vaisselle def ba mu baax te xam naa ne li may defa ko raw yéen ñi yi ngeen di defa ko raw ci koor gi ndax Sénégal <laughs> Sénégal moom jigéenu Sénégal dama leen a faral ndax ci yu baax la ñuy dox léegi li ñuy vesel ak yi ñuy def ci yu baax ci ndogu li la ñu jëm ci yu baax sañse def lu baax waxante yu baax bëggante te mu nekk lu dëggute sincère lu dëgguwul ànduma ci maa ngi leen di bàyyi damaa woor nii piir man ngay xanaa wooroo doomu jullit dina bañ a woor damaa woor piir <laughs> ba ma amee 9 ba tey damay woor damay woor di jaamu yàlla di julli bu leen juger apparence te apparence sax dara nekku ci yére olof laa sol musóoru poosew may we poosew may xef voilà kon bul ma laaj ndax damaa woor damaa woor piir di waaj a ndog comme ñëpp voilà léegi seen jot ma ñëw julli ji merci beaucoup doo ma invité nag non rakki foog ma invité la kontaan naa dangaa meilleur soxna Yacine Niass <laughs> Vieux Diouf tontu bee la neexul waaw kay <laughs> may faral di live de gis nga waaw mëma du euh, Bambaya ñaa li may live sax bëriwul détails yii rek laay daw wallahi jàmm rek ngay am Thiam Moussa voilà je m'invite Mia Seck <laughs> nuyu naa la yaa ngi nice foo Diatta da nga belli moo tax merci beaucoup Amazal Dieng waa boo demee loolu la de waxal de bas jonn ah tonte on en par kaay ma wax la nag xeesal ci boppam laa defatul mu ngi nii damaa bàyyi diw xeesalatuma xeesal baaxul mais boo ma woowee dinaa damay naan ay euh, kii lu mu tuddati euh, vitamine C ak collagène xeesal baaxul amul mucc bu rafetee tam amul mucc waaw à la base sax ñuuluma kukk maa soboon di ci dugg te lu ñaaw la day tax gëmoo sa bopp day mel ni yow la la nga am baaxul moo tax génn naa ci affaire xeesal dama am boutique nag muy Kebs Pop donc fa laay jaayee loolu boo ma woowee vitamines yeeg collagènes yi moo may def nii di la belliloo waa toutes les Mauritaniennes tam Awa Diaw moi aussi je vous adore Soxna Yacine Niass ah merci beaucoup waa Kebs kenn xamul la si lii bul nangu ñu yóbbu la dans ces choses non non chérie euh, non non bul wax loolu yóbbuwuñ ma ci dew ma ci dama il fallait ma def yenn yenn éclaircissement yi rek il fallait ma am lu ma leeral rek c'est mais defuma du ma dugg ci bas étage affaire détail yooyu waaw ah nee ne bint Cheikh Diédiou bàyyil jox ma secret bi <laughs> non secret bi boo ñëwee ma jox la ko secret nga pour nga jonga ma rek ba pare xeeñ neex <laughs> ah jonga ma bi xeeñ bi xeeñ neex bee ku gën a neex lii lii gilli ci suuf ci weeru koor gi sa tagal bi rafet na lii maa ko defal sama bopp <laughs> xam nga damaa am ndeysaan sama maam yàlla na ko yàlla yërëm Kumba Juuf Njaay liyet nag ba ca Mbarmeyaan moom turandoom góor la woon mooy premier chef de canton bi nga xamante ne mooy liyet nag Kumba Juuf Njaay moo jur sama yaay da daan jël musóor gi indi ko ba fii ba pare daal di ne ma yaakaaroo ne ay jinne may musóor de <laughs> indi tagal bi <laughs> moo tax ma ne jinne sama maam yi ñoo may tagal donc mënuma la classe plus élégante Layla Saliou voilà merci beaucoup Matar Ndiaye merci à toi Ndiaye Moustapha en Italie on t'aime Soda Waar maa leen gën a bëgg madame danga bàyyi tele xanaa dama la gëj a gis bàyyiwuma télé de dañ maa dugal fee <laughs> bàyyiwuma télé de pourtant barki démb rek euh, maa ngi woon ci tele bi maa ngi TFM de maa ngi fa ba tey rek dañ maa dama faa génn lu bari rek te aw ma rediffusion mais maa ngi ci télé bi voilà Dieynaba Bari Touré ah Sara Camara Ndiaye Awa Dia Bara depuis Brésil waaw maa ngi lay bëggee ma ni tamit voilà Siré euh, gris de face nee na ma mus naa la gis ci écran mais ku amee yar nga toujours képp yaa ngi jong ma kii kan la championne d'Afrique voilà non xeesal baaxul ma chérie Mamy Camara day yàq mun nga di def sa ay euh, maquillage sa ay puudar yu baax a baax a baax loolu moom amul sax ma dem te ñëw mi ngi ni léppay maase di naan sa ay kii actuellement su ma la waxee li may diwoo danga naan déedéet lipicar euh, lipicar lipicar laay diwoo mi ngi ci mi moom laa jëndee pharmacie ba pare nag am sama ay euh, huile sama ay huile yoo xam ne maa koy def woo ma daal yow dinga nga belli tubaarkaal la te doo xeesal te du tere nga dem te lépp dina maase uniforme voilà mi ngi noonu merci beaucoup toogal TFM bu fa mës a jógee yow ak Pape Cheikh macha allah seen plateau waaye <laughs> Mariam kamara lii de maa ngi koy door a dégg <laughs> Mariam man de chaque jour ñu ne ma jógeel fi nga nekk <laughs> ndax amoo fa visibilité Mamadou Mamadou bëgg naa nit ku bëri jàmm àdduna amul solo waaw jàmm rek ci lay dox waaye bu ma tooñ mayel ma dédicace jay naa daabo ba elle te regarde naa Dabo Ba de la part de Cheikhou Camara jongama wi fii lay doon mata sugu fara waaw kay sama naaru darmanko bi ci loo ne non kenn du wax sax sama naar bi parce que Sénégal nañu bàyyi sama pël bi sama lii bi sama olof bi naaru darmanko bi sama xarit bi xale bu baax bi matu sugu fara xale bu jongama bi voilà Awadja tu as bien fait parfois il faut répondre certaines attaques que Dieu du toujours nag dégg nga ah na ba yaa may fàttali sama yu bon yooyu Dieyna ba bari Touré naan ma frigo kon ca frigo bala <laughs> macha allah yow képp su ku la gis xam ni ku diiñ nga wallaahi bi nga tontu jarul ngay tontu ndax fi nga waxee laa weddi du ragal setal la waaw waaw noonu la ku wax lii xaali njaay euh, Seydou Fall bonsoir merci beaucoup Mamadou Samb Mamadou Bambaya Nia je t'adore aussi Fatoumata Ba bi lu muy jar après nga jël ma ci suuf am na am na prix yëpp am na lépp <laughs> après nga jël ma euh, messenger comme ça ma démerde ça dépend am na bu 90 gélule bi moom mooy jar 15000 parce que prix yi moom la ko ñëpp di jaayee am na bu mille am na bu 25000 am na bu 35000 yëpp am na bu 350 comprimé bi c'est des collagènes da nga koy def euh, genre cure la xam nga collagène la personne day produire collagène naturellement dafa am ci doomu aadama ñëpp am collagène ak glutation mais plus ci grande yi plus production euh, collagène bi dafay wàññeeku donc da nga koy booster donc loolu la Abdoulaye Kombadiri merci beaucoup jërëjëf Fatoumata Ba Ndey Boo Fay Jóob ma jàpp rek Matar Mbay noonu laay def ku la nëbb nëbb jongo ma e déggal wax bu neex bi gooto <laughs> Abibatu Gay Njaay gooto bisu naa la Dame Ndiaye merci beaucoup macha allah Kebs je t'aime comme une mère depuis la 2S depuis Star en ligne waaw Seexuma Bamba Ndiaye maay sa yaay maa la jur nii depuis Bruxelles je vous kiffe waaw kay kan la Jamisto Dia Umu Diallo voilà merci beaucoup Umu Diallo waaw Kumbis Mbayang Cissé merci beaucoup ma chérie Djibril Diallo courage Vieux Diouf émission bi jeexul waaw <laughs> Vieux Diouf nag danga may toppee TFM ba fii foo sensibilité sur la dépigmentation Ndiaye Moustapha dinaa ci jublu parce que lu ma dund la ndax am na ay temps mu fobeere woon fi <laughs> léegi nag banaa fobee rek <laughs> dinaa ci dinaa ci wax pour sama petite sœur bu Jean bu ma paree naa la woo donc euh, dinaa ci def benn numéro bu spécial won leen naka la ñuy def parce que tamit mun nga jékki-jékki euh, ragal ne booy ba boo bàyyee da ngay ñuul wala ba jàmm la ah léegi nag loolu yëpp mun na tax quoi dinaa ci def benn numéro bu spécial wax leen naka ngay def ba jël processus ba récupérer waat sa sa peau normale te du la andil benn gaañ loolu yëpp moom moo tax ma am benn boutique uniquement pour saa sama brodé bi de kii ma ko jox doomi mbàkki yu fay ji moom ma ko euh, joxoon mu di bàjjan soxna fay moo ma woo ba ma ñëw mu may ma ko vraiment muy nit ku baax mu ngi am boutique am 3 à 2S en face Masalikul euh, Jinaan voilà moo ma ko jox brodé bi mu sori lool ci man ndax nag liñ naan may neexul may na neex ndax du brodé bi moo am importance la fait que mu jékki-jékki woo ma ne ma dama la dégg ngay génn ci télé bi dama waxal lu baax te xamuloo ma kon moo ma gën a baax xanaa xanaa du moo ma gën a baax kon ki ma dégg nee na ma koy waxal lu baax te xaw ma ko mu woo ma jox ma euh, mi ngi nii euh, boutique am mi ngi en face Masalikul euh, Jinaan donc mi ngi noonu sama gars yi merci beaucoup maa ngi gërëm ñi nekkoon ci live bi yëpp nañu partager affaire bi ah partager live bi te nag gis naa ne live bi neex na kon duma ko bàyyee ti ah dinaa ci jublu waaw parce que boobu ba léegi duma def live yu bëri ñu bëri ñu ngi ma koy wax parce que bu ma voilà képp sa gëm sa bopp daam ndim maa ngi lay gërëm bu baax ah ki nga xam ne moom moo di pañe bàjjeenu jeeg ji waaw ma boole patt ak organiser waaw kay tey rek lay yem <laughs> dootuma waxaat <laughs> ah ma toog fa jeex na <laughs> jeey na ba voilà matu Sougou Farah je t'aime toi aussi euh, Seydou sàll merci beaucoup à toi merci pour le soutien jërëjëf yéen ñëpp ah, béti défileel ma lii ma tàggu ñenn ñi voilà Ami Diagne ndànk Aminata Fall merci beaucoup à toi a Saliou Dia merci euh, Mariam Camara lépp dina ñëw incha allah parce que jóge nga ci ay jaar-jaar yàlla na la yàlla sàmm TFM sama sa kër la voilà merci beaucoup à toi Mariam Camara voilà demal euh, Ba Mamadou bonjour à toi Germaine Ciss je vous aime également ma chérie Aïssatou Ciss Badiane love you moo love you star en ligne Cheikhouna Samb sa jongoma min na tagal <laughs> Ndiaye soxna May bon merci beaucoup à toi soit encore plus fortement grande bu la dara metti Samba euh, Keita voilà yéen a may jàppale rek je vais très bien Ba Mamadou je vais très bien macha allah euh, ma joxe numéro bi waaw euh, jëlal 77. da ngay jël wala demal demal sama kii euh, euh, nu mu tudd messenger demal ci messenger bi votre sœur Fatou Camara Ndiaye vous suit waaw mbokk ndey koy jur sama mag bu jigéen la nekk Thiès maa ngi koy nuyu mook jëkkëram voilà kàlla veille sur toi kii kan la jamisto ja quitté TFM yëkkati <laughs> jamisto te nga maa bàyyi <laughs> ma quitté <laughs> foofu laa am contrat CD yi de continuer sur cette waaw da nga bëgg nit ku diiñ waaw kay soxna mbenn dignité bu jógee ci doomu aadama dara desatu ci depuis Bruxelles Jaristo Dia ci une femme battante Awa Diaw merci beaucoup ma chérie depuis la Mauritanie waa xaaral les jaloux vont maigrir non grawul <laughs> macha allah man je t'adore depuis star en ligne waaw Awa Aïda merci Layla Fall ah Layla euh, entrepreneur bu mag bi nga xam ne moo nekk Sénégal borom Layla car prestige yi nga xam ne ay el el mu ngi yëngatu ci wàllu transport di jigéen di jàmbaar yow itam tu es une femme euh, battante Layla merci beaucoup nee na ma rest digne et spéciale comme tu as dit tu es une femme de valeur loin des détails ma chérie fière de toi Layla waaw man tamit dama fier ci yow laylaa ndax yow it jàmbaar nga. Le fait de nuire aux musulmans et de s'attaquer à leurs honneurs et les accusant de tort à travers et sans preuve est un péché capital. Allah le Très-Haut et ceux qui croient sans qu'ils les méritaient hein, se changent d'une calomnie et d'un péché évident. Surat 33, verset 58. Donc, mi ngi jóge ci maam Dabakh rek merci beaucoup maam Dabakh loolu baax na ci et les jumelles waa et les jumelles les jumelles elles vont bien Fatou Ba macha allah ñu ngi ci jàmm. depuis Strasbourg man yaayu seex mii depuis Strasbourg euh, nanu Fall nanu bisou ma chérie maa ngi lay nuyu sa dëkk bu neex boobu Strasbourg ñëwoon naa fa ak ñoom Moussa <laughs> def fa reportage fi ma demul bëri na bëriwul de man mi nga ne warumaa def euh, émission ndax dew ma fii laa dëkk dëkk naa fi waaye fu ma neex dem soxna mbenn ñing waa Kebs live tous les week yaa ko engagé mbaa dinaa am di nga bu dee ne mobiliser nga ma nit ñi toog <laughs> ku wax lii Mouhamadou Bamba Niang teg naa ko sa loxo bu fekkee ne da ngeen di toog rek amul problème ñu ut ay sujet yu am jom chaque jour ma annoncé ko mais après ah soutien bi ma ci bëgg a gis duma ko ci gis ay 300 vues laay am ak ay yooyu xam nga damaa bëgg mu affaire bi yow dara jomb la Justine Sagna Diop merci beaucoup ma góorgóorlu jëf jàmm ci yow rek Rachel Koli merci à toi euh, Fatima Sow Kebs c'est Mame Diagne man la sa grand mbubb envoyé ma ko waaw parce que am na ñu fi ga ñu ma fi defoon euh, euh, di maye ay cadeau ci début anne bi mais am na ñoo xam ne jël si weeguñu seen euh, yëf ba léegi donc woo leen ma ci messenger ngeen récupérer ko am na ñu récupérer am na ñu récupérer wul man may maye ay bagages <laughs> damaa soxla ay dàll ki saak ak a li ñu ma bëgg a jëndee oh duo Kebs ak Pape Cheikh yaa nga mën a dawloo jàng alxuraan dëgg la yàgg nañ laa dawloo jàng alxuraan kan la jey na ba bari ture waa dëgg la kooku nag moom danoo yàgg maak moom muy jàllo yàlla na fanam yàgg moom itam dañoo yàgg ci liggéey di def duo te duñ ko préparé muy neex doomu aadama yi voilà depuis Liberté 6 télécentre Mamour wan loo wan loof waaw dëgg la Omzo Ndaw Aminata Sall jàppal rek Aminata merci beaucoup ma chérie Euh, billaay xeesal dara baaxu ci sos na meer njëng xeesal kii la location la ba ngay lok weeru loyaas boo fayulee rek <laughs> ñu génn la ca biti <laughs> dara baaxu ci day rafet nag début bi waaye de après nam lay def il faut que ñu ñu ñu jóg ci te mën nga am teint bu rafet te te doo diw en fait les compléments alimentaires sont pour ça yenn compléments yi quoi ak ay huile ak lipikaar man daal ku ma seet si daal doo ko rëccu je de tout cœur avec toi Adja Jojo merci beaucoup ma euh, ku la xamul moo lay sosal waaye yow dangaa riche avant télé waaw bëgg sa yaay am jom sama yaay ji yàlla na xippee euh, aljana doo moroomu benn jeeg dégg nga lii yaa ma yaa ma fo kii noonu <laughs> merci beaucoup waaye jërëjëf gars yi su ma continuer nii duñ fi jóge kontaanoon naa toxop ci toogal yéen li ñu war a retenir rek mooy que li ma bëggoon a répondre man xawma luy jëw sama juróom-ñaari maam du ñu jëw duma ma jëw du wax lu bon beneen bi ma ciy teg mooy man maam ak saak saak ndax ku président de la république dëkk toog ne la lan nga bëgg ma ne la bëgguma dara li ma defal moo ma gën a rëy moo ma gën a lu ma mën a am ci àdduna te histoire da koy retenir ah woo animatrice ci télé ne ko est-ce que xam nga lu ma lay doyee ma ne ko déedéet mu ne je t'ai appelé juste pour te féliciter ndax di ngay def dama toog di la seetaan c'est la première fois may seetaan émission bi ci la ma recevoir semaine bi ci topp woolu ma ma dem toog mu ne ma lan nga bëgg ma ne ko bëgguma dara kuy toog ak Ablaye Wade mu ne la lan la bëgg nga ne ko bëgguma dara bëgguma dara kooku ngay wax ay waxu saak boobu foo nekkoon c'était en 2007 lu baax yàgg na ci réew mi buñ ko yàq bu dee lu baax la tax a jóg bu la nit defee lum la warul def woo ko nga wax ko ko mais ay la yéwén yàlla baax na ba defuma kenn lu mu war a def lu dul relayer information nga bëgg cee jaar bëgg a dédire sa bopp quand on veut se dédire on prend responsabilité mais doo jël man di ma def bouc émissaire wala nga may def nagu sarax bi ngay toog naan doo présenté wu kenn saxalu la tàngal yow yaa ko waxal sa bopp man sax concerné wu ma parce que terrain bi nga ma bëgg a woo man li ma concerné mooy dama doon def un sujet sur le rôle de député de la jaspora ma am respect bu profond nag pour ñoom ñépp dénigré wu ma kenn tooguma ci plateau ne kii liggéey na kii liggéey defuma loolu dama wax lu baax li ngeen def waxal ñeetam lu baax li ñu def man ci lu baax laay dox dénigré wu ma kenn équilibré info bi wax li nga xam ne moo métti sénégalais yi nekk bitim réew ci diaspora bi wax li nga xamante ne député diaspora yi ñoom tam métti na leen ñu wax ko ma ne ils n'ont pas les moyens pour mën a def li nga xam ne bëgg nañ koo def loolu laa wax ba pare ne tamit ñi nga xam ne ñoo bëgg a nekk député ku mu neex nga nekk ko politique kenn moomu ko ma ne nga xam ne ñoo ko nekk tam bëgg nekk député bu mu tax ñu dénigré ñi fi nekkoon ne peut-être dañu am moyen amul moyen yi parce que loolu laa dégg ñu wax ko waaye li ñu leen di reproché mooy dañu waroon delluwaat ci seen base bi leen faloon pour wax leen ne leen joxuñu ñu moyen yi man de lii laa wax c'est vérifiable aussi te dinaa xool vidéo bi dagg ko tam dugal ko et je vous prends à témoin gisuma leneen lu fi jar lii ñu may attaqué waxuma fi leneen lu dul relayer information ne diw dafa wax ni dootul présenté wu loolu daal ci la ci lañ ma bëgg a jeexalee sama jàmm c'était juste ça un petit récapitulatif pour wax ni Sénégal jàmm moo gën ay na ñëpp nekk ci jàmm nekk ci lu baax waaye gor kenn du ko tuumaal kenn du ko waxal lu mu deful naan dañoo dagg jox la man ma lay jëw duma jëw man duma wax lu bon mbàbba nguy faama ma kodd nguy faama nguy faama si rim bañik mbañaay xedd béeru ba maamu njaay ñoo ñooy sama maam man du ma kat xaw ma lu bon daara jolof gii laa dëkk nekk ndakaaru gii juddoo fi yaroo fi màggee fi musumaa nangoo tukki di fi bàyyi sama baag fu ma neex dem fi ma dem demoo fa fi ma dugg dugguloo fa li may lijjanti lijjanti woo ko bul ma wax loolu xanaa tey la ma nangul la ko nag te bañu ma la man du ma bañ doomu aadama ma nangul la ko bëgg la lool aw ma ak yow benn problème jotewuñu dara bëgg ñépp estimer leen képp kuy yëngu nekk jigéen mais Sénégal dama remarqué kuy yëngu nekk jigéen rek dañ lay jéem a di la di la di la di la jéem a bloqué quoi keroog tam def nañu ma ko ma dem war a présenter benn benn soirée soirée Wally Seck bi taxaw di di présenter sama soirée war a ñëw am ku bokk ci organisation bi daa di ne Kebs du fi yéeg du jël micro kooku ne ko lu tax soirée bi bu ngeen demee xool xam ngeen kan la soirée bi kii organisé woon la Gabriel Kane ak euh, euh, euh, nu mu tuddati Mariama Silla ne du ma jël micro bi parce que tout simplement dama am problème ak problème yu rëy ak waa 2S te waa 2 ñoo doon diffuser soirée bi biñ demee confondre ko mu ne moom mosul wax loolu alors qu'on m'a montré les message taxaw ni da ngay xeexal jigéen ba pare di xeex jigéen ci suuf pour lan nañu arrêté yooyu man ban problème laa am ak waa deux s Marème Ndiaye di sama yaay El Hadj di sama papa fi muy waxee loolu la Sala njaay ñëw fekk ma fa songu ma ci kanamam Abdoul Ndiaye ñooñu samay waay lañu samay nit lañu damay déggante ak ñoom damay wax ak ñoom tous les jours samay xarit lañu dama fay daagu dama fay dem ndax kenn moomu ko. kon bu ñu taxaw di wax lu ñaaw ndax bañ ma jël micro ndax am nga koo faral def nañ ma ko yaa même pas avant ñuy woor juste ci soirée bëgg maa yàq ne carrément du ma jël micro bi te man dew ma soirée dañ ma woo pour ma solu ñëw présenter soirée dañuy def maitre de cérémonie bi ñu def maître de cérémonie ma ñëw nit taxaw ne carrément man du ma du ma présenter parce que dama am problème inventa invention yooyu boo bëggee yàq nit rek wala nga yàq deram rek nga inventé dara loo xam ne euh, da koy wax du dëgg c'est pas fi muy waxee loolu Sala Ndiaye ñëw ni jameet songu ma Sala Ndiaye di sama doomu ndey di sama rakk di doomu El Hadj Ndiaye El di sama papa mais loolu yëpp daf ko inventé parce que tout simplement ma mais nit ki mënuloo ñëpp bëgg la boo sentirul nit bu mu tax nga sosal ko boo bëggul nit bul ko sosal boo ko buggul buggoo ko dafa am ci àdduna day am ñoo xam ne dañuy bëgg kii it ñii duñ la bëgg et loolu dama koy comprendre man nag ñëpp laa bëgg ñëpp laa bëgg wañu <laughs> ma kenn voilà am na ko may laaj goli bi c'est à combien après nga kii ma ma wax la goli bi c'est à 15000 je crois après naa la naa la naa la ko wax naa la naa la woon euh, yëf bi noonu lañ ma def keroog waaye soirée ba keroog bañ ko defee ba pare faramaareen bi fekk ma fi ma taxaw tibb xaalis bu bari may ma ko ma ne ko man du xaalis bi moo ma gënal bi ma ko compter sax du xaalis bi moo ma moo ma moo ma intéressé li ma intéressé mooy may neexul may na neex yow yaa ma gënal xaalis bi muy Wally sekk ndax fàttaliku na ne ay début yam maag moom la woon fàttewul démb dafa ñëw lëng ma kott ma te jour boobu lañ ma def loolu nañu arrêté di jéem a dénigrer nit ñi ak di leen wàcce wax ji bu guddee nag yàgg bu yàggee mu soof lii laa amoon lu ma leen di andil kontaan ci yéen di leen wax ne désormais dinañu def euh, waaw tous les week-ends <laughs> yaayu seex yi waxal ci live yi tous les week-ends tous les week léegi damay live tubaarkàlla yàlla naa ko tal te fekke ko Mouhamadou Bamba ñaa yaa ma ciy gunge <laughs> voilà neex na waaye attention de man utuma lu neex bàyyi mu du man ci lu baax laay dox ci lu baax laay wax kenn mënumaa tere live tous les su ma ko bëggee def dañ lay xoqatal pour doo def dara dañ lay tënk en fait pour nga toog rek noppi doo yëngu doo wax non no non non non sama yaay jurul boobu doom Sénégal dëkku la boo xam ne ku am looy wax danga koy wax amul kuy tere ni ñi ñu wax ñi ñoo war a wax du ñu wax kenn du wax sa xalaat kenn du wax li nga bëgg a wax man tënkuwuma ci loolu je suis libre damay dund wax li ma war a wax mais dama koy teg ci axe ci teggin ak ci yar du ma dépassé kenn mais kenn mënumaa teree exprimer wu su ma bëggee wax damay wax xanaa yàlla sob rabbul samaawaati wal ard lu ma bëgg a wax dama koy wax mais du ma wax wax ju ñaaw du ma def lu ñaaw vaar nag mi ngi fi ak archive yi man defuma lu bon waxuma lu bon damay def live tous les week-ends incha allah waaw kay <laughs> dooleel leen ma rek baam Bamba teg naa lépp ci sa loxo merci beaucoup sama gars yi ma bàyyi leen ñu dem préparer ji ndog yi ndax damay toggi togg sama passion la su ma rek maa ngi ci waañ bi togg rek laa bëgg waaw <laughs> ah, kay merci beaucoup bëgg naa leen ci kër yi partager leen affaire bi partager leen ko. Mm-hmm.